warugar la wareef la ngëneel la te it yokkute la ci képp ku yaakaar borom Touba nga dugal sa loxo ci luy jëmale Touba ca kanam yéen taalibe yi nekk Amérique am yéene dugal seen loxo mbaa seen wu ñàq ci yokkuteeg Touba indil nañu leen Touba ca kanam Amérique Touba ca kanam taxawaayam umpul kenn mi ngi dimbali daara yi di jàppale néew ji doole yi di bay waaru rëy ci wàllu wiir géram wi ñëpp gis nañu ambulance yi Touba ca kanam indi ci dëkk bu sell bi mi ngi tabax yeneen juróomi barabu fajukaay yoo xam ne ngir askan wi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw bu ñu feebaree mën a faju ci anam yi gën te barabu fajukaay yooyee léegi yépp noppi dëkk bi leer nañ làmp yu Touba ca kanam dugal ci mbeddi Touba yi yéen ñi nekk Amérique yaakaar Serigne Touba bu leen nangu kenn di leen ëpp ëppale ci yiw yi fanweeri dollar ak ñeent di 34 dollars moom la ñuy séentu ci yéen at mu nekk ku ci bëgg a joxe sa barkeelu mën nga koo jaar ci Shell wala ci Cash App ci numéro téléphone du président Touba ca kanam Amérique Serigne son yi 513 212 80 83 wala monsieur 646 384 63 92. Touba ca kanam Amérique mi ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides mu yagg fi lool te de ak wér. di leen soñu yéen yi ngir ngeen dogu farlu way gëna wéy ci bi neex ba